asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum adduna Pape Fall Waly Ballago Seck maa leen di wax ne leen ah rek mën nga ne sa sa yaram ah maanaam sa sa sa liggéey wala wala sa place wala dara wala kër yooyu di jënti nga def seeti wala sa lépp dina numéro yi ma leen di jox bi yi ma leen di jox benn bi mooy 78 la 539 84 90 539 tigo bi 76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 doomu nday Alaaji Keba la Souleymane doomu nday Kebs Kolo Alaaji Keba Dramé mën def lu baax di ko wax Sine Bass yaa ngi may dégg Sine Bass ñu dem l'enfant noir Banjul la waree doomu Banjul la séeréer la waaye Cheikh Tidiane Niang kenn du ko présenté kenn du ko présenté de l'enfant noir ak Cheikh Tidiane Niang eh l'enfant noir kon bu la neexee ne l'enfant ñuul <laughs> la moo ñuul Cheikh Tidiane Niang jël na ko door ko ca kaw serpent noir bi serpent noir la serpent de Banjul Fallou Ndiaye Ndiaye production njiital Ndiaye ñu woo Fallou Ndiaye numéro 1 Fallou Ndiaye borom Ibamar borom arena jël na ko tan way Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Niang rey na L'enfant Noir yow seen ba Cheikh Tidiane Niang lu mu def nii L'enfant Noir Banjul nga bàyyi néew Cheikh Tidiane mer de hey lakk na séeréer xale bu bi. huit laa koy daan. dama kaa wax ne ma naan perte damay entraîné xale bu ndaw laa. lu leer laa lay tegal. ah. déggoo de. am problème ne xool ba si lu war a rempli. bilaay daa am lu ma war a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 waaw sama gars bu ko kenn rafet na ba ñëpp dem seeti wasalaamaaleykum